taxaw bu kii nu mu tudd la rek. Pape Thiam Mbow. Pape Thiam. Mbow ci bu baax a baax a di ko taxawu. ko xam ne que fi mu toog mënul boppam dara kii mooy yaayam. mooy yaay Fambaye. xaaral ma gis ko 30 secondes. mais mais soxna tur bi dara ah. ah. Amady waa ji di ñaanal sama borom kër di ñaanal waaye yal na yàlla guddal fanam te yàlla may ko mu dëgg ci fi papaam dëggul di ñaanal xaas mii nga xam ne dafa jóg rek te yàlla rek a tax dërëm du dara mu jóg rek te yàlla rek a tax bëgg faam bay am cofeel ba ñëw fekk fii di ko faj di ko faj ma koy gërëm di ko ñaanal yàlla Hmm. di ko ñaanal fu mu dëgg fi yal na ngay def ci lu baax. Hmm. yal na la ci yàlla jàppale. macha jëm jeexul na. Hmm. film bi di ko gudd. film di ko gudd incha allah di ngeen rëy di que da nga daw yaram nga ne Fane Mbaye fa nekk. buy taw te bu taw bi ñëw sax ci taw ci kaw lay taw. taw bu métti sax. muy taw ci kawam moom moo ko yëkkati papa moom moo ko yëkkati. gannaaw ñëw ah. maa ngi ñëwaat après topp